Cheikh Mbacké jomam fullaam faydaam ak ngoram lépp mu def ko ci parti bi kon sëriñ Cheikh gàcce ngaalaama dafa mel ne kon buñ la sargalu tey sunu ngor des na sunu fulla madut amunu jom dan laa war a sargal bu baax a baax sëriñ Mbacké Bara Dolly sëriñ Cheikh Bara Dolly Mbacké dan lay sargal te da la xam ne nun sëriñ nun ñii nga daan tey nun nooy ne waa Touba di waa PDS ACI ak femmes yi ak xale yi ñoo ngi ci sa gannaaw suba ak ngoon. wuy si ngeen ko fii pour ñëw sargal ma delloo ma njukkal ndax ñëpp xam nañu ne bi ma nekkee député ci la ñu sentiré ne département Mbacké ñi ngi soog am ay député sama député ci la ñu sentiré ne gis nañu ay nit wi taxaw di kaasal tuuba ak Mbacké bu njëkk nit daana nekk ab député assemblée nationale ba mu jeex bu dajee yow ci mbedd mi doo ko xam. man maa njëkk a nekk ab président groupe parlementaire ci département Mbacké te ñi nga xamante ne dañuy saytu yëpp d'accord nañ ne man maay le meilleur président groupe parlementaire ci mbooleem président groupe parlementaire yi fi ma fa jaar ci opposition loolu ñëpp nangul nañ ma ma nekk doomu Touba nekk doomu Mbacké jàpp parti bi yor ko di dundal parti bi ci kaw ak ci suuf bu ma nee leen ci kaw ak ci suuf mooy maa ko yoroon ca kaw maa ko yor ci suuf président Abdoulaye Wade nekku fi Karim Wade nekku fi may dundal parti bi yoon parti bi ci sama jëf ak sama ñàkk sonn ci lu ne ma daj ko amuñu luñ may fayee lu may di ma investir à la treizième position loolu dama jàpp ni humiliation la te humiliation yi boobu ñu ma def jàpp naa métti na leen ndax moo bokk na tey ci li tax ngeen daje fi ba tax na maa ngi leen di ñaan lii nga xam ne def nañu ma ko mu metti ma yéen yéen a ma ko mën a fajal na ngeen ma koy fajalee nag dinaa leen ko wax ndax joxaat naa leen rendez-vous terrain stade ba terrain terrain terrain gaar ba bu boobaa am meeting lay doon ca biir meeting ba ci campagne bi lay doon dinaa leen wax li ñu war a def dinaa leen wax lan moo war a nekk suñu position ci mbir mi ndax nag nit su la dóoree mbéj la mbéjaat la mbejaat la soo fa yuul bu boobaa day mel ni doo as ndax président Abdoulaye Wade nit ku baax la président Abdoulaye Wade ku bëgg sëriñ Touba waaye nag président Abdoulaye Wade léegi day mag dogalutul doomam mooy dogal muy Karim Wade ca Karim Wade boobu ak Abdoulaye Wade bokkuñu. parce que nag Abdoulaye Wade dafa juddoo Sénégal màggee Sénégal yaro Sénégal xam Sénégal xam culture Sénégal kenn xamul culture Sénégal boo gisee tey lii am tey looloo ko waral ndax bu fekkente ne ci xam-xam la xam ngeen ne ñañu fa teg maa leen ëpp xam-xam bu fekkente ne ab yar la jàpp naa ne maa leen ko ëppale bu fekkente ne mën a wax loo xamante ne dëgg la jàpp naa ne ñëpp xam nañ ma ci dëgg ndax bërki démb bi ñu jógee indi ay tappale ma bokk ci opposition bi xam ne lii nga xamante ne ñu ngi koy wax du dëgg bëgg a yëngal réew mi damaa jóg taxaw ne du dëgg nun ñoo ko def ba ñuy dugal juróomi góor lañ dugal ak ñaari jigéen kon bu ñu nax askan wi nañuy wax askan wi dëgg bokk ci mbir nag warul a tax maanaam boo gisee loo xamante ne du dëgg nga taxaw ne part man duma lool kon nag maa ngi feddali sama kóllëre ak yéen maa ngi leen di gën a dénk sama bopp ngeen jàppale ma ndax kat yéen laa yaakaar ndax yéenay sama doole ndax man Touba laa yaakaar sëriñ Touba laa yaakaar di sëtu Serigne lu ma am Touba laa koy yéene tey tey Touba tey bu ñu demee tey ba am hôpital grâce à Cheikh Bara Doli maa ko njëkk kaas maa ko njëkk a xeex mu commencé woon ca jamonoy président Abdoulaye Wade lii may wax ñu bari presse baa ngi fi bis bi ma ko njëkkee wax ne ko Touba amagul hôpital construit par l' état ab centre de santé la ñu am bis boobu bi muy woo Modou jaañ Fada mi ngi dëkk bu ñuy wax Windhoek ca Namibie bi président Macky sàll ñëwee combat boobu ma continuer ma ne ko ba tey jii tey Touba tey am hôpital grâce à moi. man nag man nag yëmuma foofu keroog bi nga xamante ne bëgg nañu Touba fay ndox yéen ñëpp fàttewu leen ko bis boobu man maa taxaw jàkkaarloog assemblée nationale taxaw ne du fi amee loolu yéen ñëpp gisoon ngeen bari na suñ ko dee lim buñ ko dee lim si la ñuy fanaan ndax jàpp naa ne marke naa histoire u assemblée nationale ndax tey boo demee tey suñuy sëtaat buñ dikkaatee danañ xam ne Cheikh Bara Dolly nit ku mënoon a bañ la te loolu rek mooy li am solo ndax sëriñ Touba bañoon mënoon a bañ kon nun ku nekk murit war na am fulla bu wéetoon sax doon benn war naa taxaw bañ bu gisee li mbar a bañ kon nag mbir mi metti na mais nag campagne ubbeegul buñ fi àggee danañ leen wax li ñu war a def danañ leen wax lan mooy suñ position mais en tout cas daal li ma leen bëgg a xamal mooy Cheikh Bara Dolly fas yéene na ànd ak yéen fas yéene na continuer di leen xeexal fas yéene na continuer nekk seen ambassadeur pour xeexal Touba ak département Mbacké kon tey sant naa leen gërëm naa leen sama xol sedd na tey lii wane na ne tuubaat Cheikh Bara Dolly lañ àndal ak Mbacke lii wane na waaw yéen jigéen ñi bu ñu ma sargalee mu mel nii bu ndaw ñi ñëwee war maa defal sargal nan lay mel bu mag ñi ñëwee war maa defal sargal nan lay mel nag dama leen di ñaan rek sargal yi bii lancement la yeneen sargal ya bu ñu ci àggee ab meeting lay doon ñu amal ko ci boulevard bi def ko en direct ci tous les di du Sénégal bu boobaa ma indil leen fi lépp lu ngeen soxla loo xam ne dana bégal seen xol waaye duma yem ci loolu aussi dina leen taxaw jàppale leen ba ngeen am ay projet ndax nag nit ki man ku ma jam doon naa ni ndax ku ma xam-xam ne bokk naa mënuma tàgg sama bopp de waaye jàpp naa ne kenn ma fit ci Sénégal loolu laa gëm kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm